خفيا وهو النجي لسي البقاء له الختاب له الجواب له الصواب ما ردائي له البرار له السرار تلقاه بعد الخضاء لو ختابي بعد متابي من كل حابي مع المضاء لك خوارق من ذي الخلائق ليست لسابق ولا لجائي من انصراف سين يعافى أما يخاف من التجاء خير البرايا سد البلايا لسي الخطايا رمت النجاء أنت الكريم أنا الخديم دار نديم فيك سنائي رمت امتداها يهدي فلا يكفي افتداء مع الحناء إني بما دي عين تربي قطعا ونجي مع البناء لكن هجست عملت مصر وما مددت كنبلاي خار بدادي عرف آدي عن مده هادي للبدلاء فكيف أهوي مدها لمهتدي والمدوم بالهقلاء لكن أنادي كل الهباد إلهي مادي بلا جلاء يا أهل بر يا أهل بحر هجول بر بحر سخاء maayi huyóobi mubdi um huyóobi munxiiju yóobi min attaxaayi musdi ayaadi murdi axaadi muhti muraadi maharraxaayi maayi rasaa'il muhti alfadaa'il مهي المنازل بعد الحفاء نم الحبيب نم القريب نم اللبيب معي الخفاء حمل هيالا كفى القتال مع المجال بلا رفاء أفى السرور عبد الخيورة قال سرورة لسر الرجاء سفى سقيما نفى الأليما قاد الخديما إلى النجاء قد فك كبلا قد بس فضلا فالضر ولا والنفع جائب جال النوائب مبديها جائب ناثي مصائب jërëjëf Cheikh Mahmoud Fadil yi taxawaay bi mat na sëkk fa tabaarakallah ci dolli ay kàddu sax xam naa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 fonk suñu diine fonk suñu taalibe rek moo fi nekk góorgóorlu baax su ñu doon jullit di taalibe rek taalibe itam yombul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 nan góorgóorlu ci suñu diine fonk suñu diine nan góorgóorlu ci fonk suñu taalibe suñu kem kàttan di sant nag gannaaw bu sant suñu borom ñu nu booleeg sëriñ bi sant sëriñ bi mi nu fàggul suñu lépp xalal nu yoon wi xamal nu ko kon gannaaw bu nu santee suñu borom mi nu booleeg sëriñ bi noo ngi sant sëriñ bi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 sax ca dàkk sunu kem kàttan te rekk tax nu ko def ak njukkaliku Sëriñ Tuubaa eh, mu mu mu ngi leen koy liggéeyale jërë ngeen ok mbokk yi ñu doon topp ci MKTV gis ngeen ko yéen a gis noonu julli gi ah, macha allah ci teewaayu Cheikh Mouhamadul Mountakha alxalifatul am di tarixatul muridiyya di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér ak mboolem njabootu Cheikhul Khadim bi féete woon ci ndey jooram sëriñ Bassirou Mbacke Abdoul Khadir mi nga xam ne moo yor kàddoom ak mboolem kilifa yu baree bare mën nañ cee tudd Serigne Cheikh Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadir ak Serigne Cheikh Mbacke moom Cheikh Mouhamadul ma sëñ Mahmadan ak euh, mboolem kilifa yi njabootu Cheikh Mouhamadul Fadal ñu ci baree bari teew nañ ci euh, jullikaay bi ak mbokki taalibe yu bari. ni leen ko digee woon gis ngeen julli gi sëriñ Fallou Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadir moo ko jiite ci ñaari ràkkaay ginnaaw bi mu def xutba bu am solo boobu ginnaaw bi mu fàttali li aju ci muurum koor ci ne ba tey mënees na koo génne fii ba jant di so ginnaaw bi nag la doog a jël kàddu gi jébbal ko Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yëkkati kaddu kaddu soññee jëme ci ak gën a jaamu yàlla gën a topp sunna Seydina Muhammad waaye nag gën a fonk suñu taalibe gën a bàyyi xel liggéeyub Serigne Touba yi yokk suñu pas-pas yokk suñu yéene muy kaddu yoo xam ne yàgg na ko soññee yeesalaat na ko mbokki taalibe yu baree baree bare teew na ko mën cee jëlee ay njëriñ yu baree baree bare mu ngi ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te mooy ko wér gis ngeen ni ñu ko baaxoo defee MKTV ak ay techniciens ak ñi muy àndal partenaires yi muy àndal di liggéey ci ay télévision ay site internet direct yi nga xamante ni fii lañ koy jëlee ngir bëgg nañ lépp luy xew ci jumaa ji wala ci jullikaay it bi dara du leen ci ump ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal caméraman yi Samsudine Ndiaye euh, euh, macha allah ak caméraman yi nga xamante ni ñoo nekk ci MK TV ñoom ñëpp diirub weeru koor bi ñoom ñëpp ñu àndandoo Euh, ci ginnaaw Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne moo jiitee sit internet bii di Mosquée Touba ak chaîne YouTube bii di MKTV ñu ngi leen di jëfal bu baax a baax di leen ñaanal suñu borom subhanahu wa taala mu nangul ñu suñu koor nangul ñu suñu jaamu yàlla yi nangul ñu suñu julli ak suñu naafile yi yëpp euh, nangul ñu liggéey bi nga xam ne moom lañ doon liggéey ci barab bu tedd bi doon ko liggéeyal Cheikhul Khadim kon dañ leen di wax rek wa kullu aamin wa antum bi xayrin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.